nice na trop trop trop ñu ngi remercier ñëpp nag ñi si jàpp ñëpp bàyyi ñu kenn di nga commencé si Matar ak grand yi fi nekk ay Bamba ñëpp a ngi fi ñëpp ñu ngi remercier ñëpp waaw léegi dama bëgg nag nga ñëw ñu avancé ma présenté la gars yi. bi daaw da daam c'est Kotsu. Bamba ici. capitaine waaw <laughs> capitaine c'est daam allez Kotsu. instant yi moom bon taw feex quoi. xam nga invité yi ñëw nañ gars yëpp teew nañ instant li des mooy mu tàmbali gars yi commencé daal. waaw fi ñu gis nañ ne actuellement nii tout se passe très bien macha allah alhamdulilah. parce que li ñu soxla woon pour la moment lépp am nañ ko. ñaan yàlla ñu tàmbali événement bi si jàmm jeexalee ko si alhamdulilahi rabil alamin voilà loolu daal lañ si amoon lu ñuy contribuer di remercier tout le monde macha allah. waaw mais initiative bu bi que journée boo am te ne One seen moo ko euh, initié kon dañuy def lu dul rafetlu ko rek ndax sport dafa baax ci santé waaw ñun ko moom ci wàllu musculation bi la ñuy mais tey moom dinañ jëm tuuti ci fitness bi. nga ci am quoi. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, di ziar ñëpp ah di rafetlu initiative euh, le fait que ñu organiser un événement de en envergure c'est juste pour promouvoir le sport. waaw man nag souvent gym def a ma habitude di def euh, musculation parce que dafa nekk loo xamante ne moo ma gënal c'est pour plus euh, de condition physique et de souplesse. mooy noonu daal pour promouvoir le sport bon je pense que ne c'est quelque chose de bien boo xamante ne dina tax euh, ñëpp kenn ku nekk xam lan mooy importance sport dans la vie humaine quoi. waaw affaire moom dafa lu rafet quoi. parce que li moom xam nga dafa jaadu xam nga rek suñu zone bi moom yi dafa war a war a am yu bëri parce que boo xoolee sport bi. ñi koy pratiquer bëriwul parce que boo xoolee dañ naan fecc la quoi da nga koy oyofal mais boo demee boo bokk ci gaay di nga xam ne affaire bi entraînement normal la quoi te dafa complet quoi man loolu moo neex si affaire yi quoi. waa événement bi de vraiment man dama ci kontaan parce que dafa ñëw nu kawe sama njort foogu ma ko woon nii sax mais vraiment gars yi ñëw nañu ak yéene xam nga lii dafa neex woote ñu ñëw waxuma la woon ñëw waaye gars yi ñoo def seen moyen def seen lépp ba pare teew gën la bëgg bis bi. lii da lay gën a encouragé waat ba lépp loo doon def nga gën ko yokkaat parce que lii yombul daal sama xol sedd na trop nag. ba ci kat. je peux dire que c'est de sensibilisation quoi pour ñu gën a sensibiliser gars xam ne baax na sport bi ou bien fitness bi doonul loo xam ne nii depuis de vue wok da ngay xalaat ne affaire de fecc la mais boo ñëwee si làng gi yow xam nga nu mu demee. waaw yaakaar naa sant yàlla dañuy sant yàlla bu wér li waral ñuy sant yàlla bu baax parce lu kenn mosul kere di ñaan yàlla lépp lu mu xamante ne moom la kere nii suñu borom xéwalal ñu si parce que kanam ba ñi xamante ne ñu si dëkk bi ñu si dëkk bi ñëw xool li ñuy def xam na lii loo am solo la lu am njëriñ. salaamaaleykum Pape Seck sama rakk na nga def ça bien waa fitness bi day vraiment kontaan nañ si ndax nu ñun saal bi suñu salle la foofu la ñuy tàggate yaram bi chaque jour foofu la ñuy exporé tey ñu am programme bu mag. Euh, après invité suñuy moroomu yeneen saal yi pour ñu ñëw defandoo fitness bi donc kontaante lañ si am ak mbégte quoi merci beaucoup. ci kontaan rek ci waa saal bi waaw ndax ku si nekk yëf yi jàppee nga ko comme sa yëfu bopp waaw di si di ñu bari. allez gars yi One Nation ah. ok. allez gars yi reculez la distance s'il vous plaît reculez reculez s'il te nga ne takkaloo fii reculer ñu am ñu reculer am ñu reculer gars jàppale si organisation ma surtout les coachs coachs yi maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ah di leen remercier ndax àddina moom dara yombul taxawal mbir yombul te c'est une première mu mel ni mu mel ni waa Pikine Thiaroye Yeumbeul ñëpp ñëw kon loolu sant yàlla la woote première fois ñëpp uy la rek dafa jar a sant yàlla daanaka man moom li ma si wax bariwul man chaque jour bu mooy wax damay wax si côté sport euh, dëkk bi toll na fa nga xam ne ni feebar yi bari na garab seer na hôpital yi maanaam métti na daal métti na trop trop trop kon li nga xam ne nii mooy li nga xam ne nii moo si war a jiitu moo ñuy tàggat yaram muy xale bi muy mag mi muy jigéen muy góor képp ku yàlla may wér gu yaram man man mën ko def rek jéemal nga dem def ji ko parce que mooy médicament bi nga xam ne nii moo jiitu se si nit ki di rafetlu tamit initiateurs yi ñi nga xam ne ni ñoo initié lii di leen remercier di leen sant di leen gërëm di leen wax ne lu ñu man ren yàlla lañ ko gën a man di féliciter tamit kët si di leen sant ndax euh, ñëw di tàggat ay nit nit ñu bokkul ay jikko dafa metti te boobu ba léegi ñoom ñu ngi si bàyyiwuñu ñu ngi xool ki nga xam ne nii am na ay défaut ñoom ñu koy dindi te lépp sport moo tax lépp tamit sport moo ko waral vraiment daal affaire bi moom affaire bu ma saluer la affaire bu ma rafetlu la affaire bu ma kontaan la affaire bu ma neex la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax na yàlla ñu ko yàlla may ñu tàmbale ko si bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilah baax ñu ngi siy gis suñu bopp bu baax macha allah di ñaan yàlla ñu koy def di ko def di ko def ay incha allah ñu ñaanal suñu coach yàlla jëmale ko kanam ñu ñaan suñu coach yàlla jëmale ko kanam bi mu bëgg a egg moom moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal. merci beaucoup waaw fitness show bi moom neex na moom macha allah première fois ci Tëngéej may doog a assisté lu mel nii du coup man dama kontaan parce que. Euh, en tout cas woote nag ñu ni se nañu allah daal kontaan nañu. non lii moom euh, lii kii bu ñu rafetlu la quoi vu que ñi ko organiser ay jeunes lañ donc c' est normal pour que ñu organiser lu mel nii fii quoi donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa Rufisque di sant organisateurs yi yëpp donc One Nation ñun ñëpp benn lañ donc ñooy ànd liggéeyandoo defandoo def suñu poche. merci. waaw mais l' initiative vraiment magnifique Je pense que l'initiative est vraiment magnifique. Comme vous avez vu, euh, ni ngeen ko gisee quoi ñëw nañu bokk ci équipe bi ah donc bokk ak gars yi fitness bi et vraiment on n'a pas on n'a pas regretté quoi et puis surtout cet environnement de communion avec la jeunesse donc ñu ne neen la quoi et donc c'est ça en fait c'est-à-dire que il faut que ñuy créer des plages yo xamante ni dañuy mën a daje xam avec la jeunesse di mën a partager ces moments-là, c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas meilleur euh, prétexte que le sport. Donc véritablement di di di di encourager en fait ñi nga xam ne ñoom initiative bi et puis di leen wax ne donc on est tout dedans quoi donc ñu ngi ci biir voilà vraiment merci et chapeau à eux quoi. non laaxatuma ne dama nekk ci gérer sono bi quoi am ah, na salle bi salle bi man bul fànn ci ci laa bokk aussi waaw. tu vois donc mais Emma loo événement bi. bon comme ni ñu wax rek cest dafa neex quoi au fait ñëpp. ambiance bi déjà gis ngeen li fi am c' est très joli c' très beau parce que ñun ñu ngi woon ci salle bi pendant toutes ces années di di euh, di entraîner mais en ce moment l'idée nous est venue pourquoi pas ne pas faire une journée de fitness show et actuellement nii c' ce qui est en de se passer comme ça bon c' une première hein, si trompe pas c' est naa ne dina ñëwaat yeneen éditions yi di ñëw on fera de sorte que dina gën a yaatu dinañ dem ba stade li ñuy jëlee quoi. kontaan nañ kontaan nañ lool lool lool salle moom fa la ñuy fréquenter nga te gis nañ fi yoo xam ne mooy loolu. waaw dañuy ñaan yàlla na ko yàlla yokku rek. waa en fait euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di am kontaante di am mbégte di gërëm ñëpp nag ñi fi teew ñëpp lii nag mënul ñàkk ma wax mënul ñàkk parce que man ak ñoom du tey démb woon donc kontaan nañ trop tey tey tey bés bi moom wax dëgg yàlla jombuñu quoi.